continuité xam nga danger bi Sénégal dañuy bàyyi ba décembre bëgg sport pour sol robe dañuy bàyyi ba programme mariage pour sol robe da ngay gis benn góor bay waaj a takk jabar dem entraîner et c'est dangereux sport continuité la mhm. sport nécessité la du luxe ça fait partie de la vie quotidienne daf ci bokk chaque soo amulay jot ba ñàkk jot jëlal douze minutes wala quinze minutes wala par jour non par jour bu fekkee da nga ñàkk jot mais organisation mondiale de la santé dafay réclamer ngi def mille pas par jour wala une fois euh, boo ko defee tey nga tëb lundi mercredi vendredi ou mardi jeudi samedi ou bien tous les dimanches mais boobu c'est le minimum minimum il te faut minimum trois séances par semaine. ne serait-ce que pour ce rythme cardiaque sax mu stable. ne serait-ce que pour euh, euh pollution bi nga génne ko sa sa. benn bi yooyu yëpp am soxla rek def ko continuité la. xam nga dangay ngay ndékki añ reer am collation wala nga ne non damay ndékki damay añ wala damay reer damay añ donc sport noonu la amee lu doon loo xam ne continuité la chaque jour nga def sa quarante 45 wala sa 30 minutes. waaw si tu es un sédentaire. bu fekkee ne nag euh, kuy defar yaram la nii 2 à 3 séances mais bu dee athlète de haut niveau il te faut 4 à cinq séances et plus tes jours de repos. plus l'alimentation équilibrée bi. surtout l'alimentation euh, ñëwoon nga ci keroog mu hmm. am solo. dinañ ci gën a ñëw dinañ ci gën a ñëw pour wàll ne la du yëkkati rek wala daw nii rek parce que buñ la nee boo dawee tant de kilomètres perdre nga tant de calories waaw nga ñibbi kër nga xiif. double li nga perdre. dëgg la c'est vrai ça donne plus et boo ñëwee da ngay da ngay am sa poumon yi lépp day ubbeeku. Mm-hmm. parce que boo di sport da ngay da ngay da ngay féex quoi. Mm-hmm. donc lekk beeg naan bi yëpp da nga ko war a limiter équilibrer ko. macha allah pour que nga am une santé meilleure ñu am insomnie sax. Mm-hmm. Euh, bu ñuy faral di def sport euh, dañuy am. Euh, ñi gaaw a nelaw ñi gaaw a nelaw. la récupération vite da koy am quoi. kon de ta coach daal coach daal yàlla na nga gudd fan. <laughs> am wér gi yaram. di xëyee saa su ne rek. ah mardi ak samedi di ñëw fii. ñuy subatel waaw ñuy subatel. di fitness ci biir subatel waaw di fitness. waaw mais di leen koñ aussi seen gym rubrique bi. ñu jàll aussi seen gym bi moom dañ koy koñ moom waaye man man moom subatel bi. mais di nuyu téléspectateurs yi am nañ contentement ak mbégte. xam nga mhm. yàlla bu la jimbalee ba nga nekk ci benn mbir nit ñi dem ba adapté ko ba macha allah télé yëpp léegi da ngay gis ne ñëpp am nañu rubrique bu mel noonu mais sant yàlla bu baax di remercier waa DMV. on dit que la Sen TV est la première chaîne urbaine du Sénégal la chaîne leader c'est pas pour rien c'est pour ces gens genre de choses ñu di la jaajëfal bu baax a baax coach à samedi incha allah. incha allah samedi. alors ci noonu la ñuy euh, jublu rek ci li nga xamante ni mooy le journal de la femme en compagnie de Mamiko ici tout de suite. alors Mamiko. naka moo. maa ngi nii rek. suñu kii bi dafa neex de top sax est-ce que Pape Sidy ñu ko tegaat t'as vu comment je bouge. oui bah oui justement c'est ce que j'aimerais j'aime bien euh, quand on se euh, lève le matin avec beaucoup euh, de d'enthousiasme de pêche mm. et beaucoup d'humeur aussi c'est très important parce que am na ñoo xam ne ñu yeewu mer alors que comme on dit le bonheur. est relatif yeewu suba am ñoo xam ne yeew bi dafa métti bu ñu xalaatee yoon bi dañuy découragé bu sax mer mais dañuy découragé waaw mais ça dépend noo koy xalaatee xam nga boo nekkee ci yoon bi teg sa musique bu lay détendre euh, jékki-jékki di sàndeeku fëlaale zéro stress genre paasan yi boo leen dégloo <laughs> dañuy nekk fi di la ñaxtu kopp kom bi ñàkk gi da nga sa xol bi day gën a jeex ah, gisoo daa dugg si indi waaw ah, man de man damay non stress man su ma yeewoo man le ah. matin quand je me réveille quand je me lève de mon lit non stress laay suba teel nag. non gaaw am cardiaque doo gaaw am cardiaque de voilà c'est ça nag wér gu yaram alors tey nga fas yéene mm. ñoo waxtaanal li nga xamante ne mooy la photographie et la femme. Mm-hmm. alors euh, mu nekk métier wu photographe ñu gënoon ci ràññee góor ñi. Mm-hmm. ndaxte jigéen mënuloon dem fépp waaye jamono ji dafa mel ni jigéen dañ ko révolutionné. voilà dañ ko révolutionné euh, xam nga Sénégal boo ne photographie la majeure partie des gens dañuy xalaat photo xew yi nga xam ne téeméer ñu la ak yooyu la photographie c'est réalisation d'une image en temps réel donc jigéen ñi nag daal di ko songu gën cee xarañ góor yi je pèse bien mi moo gën cee xanañ góor ñi parce que ñoom dañoo euh, maitrise li nga xam ni moom mooy détails yi dañuy euh, defar bu baax a baax li nga xam ni moom mooy seen objectif et c'est très important et pour cela on va aller voir Aïda Badji Soumaré photographe professionnel la mu daal di ñu wax tuuti ci li nga xam ne moom mooy photographie. Euh, maa ngi tudd Aïda Badji Soumaré Épouse Soumaré euh, photographe euh, professionnel spécialisé euh, ci photographie de plateau cinéma. Ah, métier bi nag dafa nekkoon loo xamante ne ba ba ma nekkee xale daf ma yàgg neex parce que dama am sama benn ndijaay boo xamante ne photographe la ci moom laa doon xool le fait que muy tenir appareil bi di karaj karaj ça m'a toujours été quelque chose de formidable. après nag ma bokk ci euh, suñu euh, daara mooy ñi nga xam ne ñoo ma yar association islamique bi euh, mu amoon benn cellule de communication mais cellule de communication bi dafa tumuranke woon preneur d'image après ma ma jël volontaire tariya ñu formé ma ndeysaan samay prédécesseurs yu baax ku ñuy wax Babacar Thiel ak Youssoufa Niass ak ñooñu ñu formé ma di ma jox appareil may dem ndànk-ndànk ba keroog may intégré école bi di sub info nga xamante ne ñoom ñoom ñoom ñooy spécialiste dans le domaine de l'image ci laa commencé nag di bëgg photo macha allah. xam nga sunu société moom boo nee jigéen rek da ngaa war a am limite ci liggéey donc dañuy dégg tendance que ñu ne photographie góor moo ko war a def ba tax na du ñu ñeme ou bien dañuy sous-estimer sax jigéen buy euh, def genre métier yooyu mais léegi sax commencé na changer. depuis 2012 2013 ba 2020 yi commencé na changé ñuy commencé xam réellement que ne métier bi góor mën na ko def jigéen mën na ko def donc mun naa ne sax awma ci difficulté yu bari parce que léegi métier bi société bi commencé na ko nangu mais auparavant c'est-à-dire euh, temps wu photo analogique ou bien argentique c'est très rare nga gis benn photographe bu jigéen très fii ci Sénégal moo tax tey bu ñuy lim sax ay photographe yu jigéen Euh, ci suñuy maam yeeg yooyu doo ko fi gis fii ay maam kase góor yi ñu la fiy limal lépp yépp ay góor lañ ay maam kase ay ay ay ay ay ay Boubacar Touré Mané Mboné ay Matar donc doo fi gis jigéen amul donc ñun ñun nouvelle génération bi xëy na ñun incha allah dans dix siècles ou bien dans dans une siècle autant pour moi dinañu xam ne ku ku mel ni ay Badji jaar na fi Malika Diagana Ina Thiam et cetera. ba ma ci duggee ba tey mun naa ne def naa ci 15 ans. donc euh, ubbil na ma ouverture sociale am naa ci ouverture tamit euh, boo xamante ne c'est maanaam weesu na sama njort parce que dama ko fullaal te Olof Njaay day faral di wax naan nit ki loo bëgg lu ne yàlla fekk la ci galereew ma ci xuus naa rampe naa mais macha allah tey jii bu ñuy lim ay photographie jigéen ci Sénégal dooma ci bañ a boole donc am na lu ma defal moo xam côté bu ne nag wax dëgg yàlla parce que passion laa si doon demee mais au fur et à mesure nit ñi xam ne lii ni war nga ko mën a def liggéey aujourd'hui maa ngi sant yàlla maa ngi ci benn maison de production bu mag di fa imposer fa photographie parce que xam nga fii euh, Sénégal tàmmuñu di jël euh, cinéma di ci def photographe de plateau pourtant c'est un métier daal le man maay ki ko fi njëkk imposer Sénégal Euh, ci benn maison de production très connue dont je ne veux pas de nom pour faire de la pub tey jii bëri na tamit euh, à travers cette maison ñu gis ma si léegi képp kuy def cinéma Sénégal dangay ngay bëgg am photographie de plateau ci li ngay def donc sant yàlla ak leneen ak leneen ak leneen daal. waaw photographie nag dafa am ay spécialité parce que da ngay gis ku ne sax man photographie portrait la kii ne photographie. Euh, architecte la kii ne photographie nudité la kii ne photographie abstrait la kii ne photographie autodidacte autodidacte nag mu ëmb lépp amoo taamuwaay mooy yow fu ñu la woo rek war nga fa ne waaye man ci sama cas comme man association bi ma bokk euh, dama xaw a ndongowe daal dama am limite dinaa photo lépp sauf photographie spécialiste en nudité ragaluma photo néew choix la aussi mais mosuma ko def mais man li ma doon gënal daal mooy montre le côté positif de la photographie. mu nekk un métier passionnant góor mën ko def jigéen mën ko def waaye lii paasaan man daf may fàttali tuuti carrières et profils et que je rappelle Yacine a qui on fait un coucou nam nañ la bu baax di la yóbbu nekk foofu ci jàmm te ñibbisiwaat gaaw ñibbisiwaat namm naa la alors donc pour raple aussi que oui mu nekk métier boo xam ne c'est passionnant ah photo moom c'est jar naa immortalisé. non photo moom dafa passionnant loolu sax euh, ba tax na euh, vraiment jigéen yi euh, di ci yëngu bu baax a baax mais ñu daal di fàttali tuuti histoire. Mhm. fàttali la première photographe femme bi nga xam ni moo njëkk dugg ci photo c'est la c'est Constance Talbot. Constance mhm. Talbot nag moom mooy soxna ki nga xam ni moom moo inventé photographie. donc mu nekk loo xam ne am na solo mu njëkk a jiital benn exposition bu bu mag boo xam ni da tuddee. Euh, li nga xam ne moom mooy euh, est-ce que les femmes et la photographie. daal mm. daal di ko euh, def euh, benn genre thème de genre euh, pour les femmes donc jigéen ñi di ciy yëngu bu baax a baax a baax parmi Aïda Bagui Soumaré on peut en citer d'autres photographes comme ku ci mel ni Anta Diack. comme ku mm-hmm. ci mel ni Fama Diouf comme ku ci mel ni keneen ak keneen donc mm-hmm. ñu wax leen aussi faciliter li nga xam ni moom mooy les déplacements à l'international parce que ce sont des photographes gis nga réew boo gis am nañ ay photographes attitrés yoo xam ni loolu nga xam ni nguur yi lu mu xewal dañ leen di jël. yóbbu leen ñu daal di euh, liggéey liggéey bu am solo et c'est très important macha allah ñu jublu rek ci ñaar euh, ñaareelu ponkum euh, li nga nar a waxtaanee voilà ñaareelu ponk bi on va parler de l'autonomisation de la femme entrepreneuriat féminin et c'est très important donc euh, the woman entrepreneuriat finance initiative muy WIFI c'est un projet qui a été lancé euh, par la Banque mondiale piloté par l'ONU Femmes qui va permettre de financer des femmes entrepreneurs c'est très important et de leur faciliter vraiment euh, li nga xam ni moom mooy euh, petite et moyenne entreprise yi gérée et dirigée par des femmes l'accès aux commandes publiques au Sénégal maanaam projet bi ça vise Euh, ma wax ko ci olof dafay jàpp dañ ko defar pour jàppale ñi nga xam ni mooy jigéen ñi nga xam ñoom ñoo jiite petite et moyenne entreprise yi fii ci Sénégal pour jàppale leen bu baax a baax ñu mën a am facilité ak accès ci li nga xam ne moom mooy financement yi mais ak li nga xam ne moom mooy marché public yi mm-hmm. parce que dañooy daal di gis ni marché public li ci gën a bëri ay góor a koy remporter léegi nag dañoo bëgg euh, à travers ce projet jàppale jigéen ñi ñoom ñuy gën a dugg ci li nga xam ne moom mooy euh, commande publique yi donc projet bi ñu ngi ko lancé le 23 janvier 2020 mhm. et euh, la banque mondiale euh, dugal am na ci euh, yéeneem dugal li nga xam ne moom mooy un million de dollars un milliard de dollars autant pour moi pour li nga xam ne moom mooy jigéenu Sénégal la bu loolu weesoo Sénégal mhm. ak Rwanda mhm. Afrique du Sud ñoom tamit ils viennent de rejoindre li nga xam ne moom mooy Fonds africain pour le leadership féminin ce qui est très important African Women Leadership Fund donc donc avec euh, une contribution de 500 000 dollars chacun hein, dans le cadre de l'autonomisation des femmes africaine ñu daal autonomisation maanaam mooy euh, euh, dooleel jigéen ñi ngir ñu mën a liggéey ñàkk euh, ñàkk jëriñu ba pare mën a aussi li nga xam ni moom mooy liggéey ci li nga xam ni moom mooy consommation locale bi fii ci Sénégal donc le 30 et le 31 janvier la Banque mondiale aussi a tenu un atelier régional sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest ak du centre ministère de la femme sax ma nga fa woon daal di li nga xam ni taxaw li nga xam ni moom mooy li ñuy wax ci ci jigéen Sénégal mu nekk fële ca Libreville au Gabon donc euh, vraiment ça a été annoncé le 31 janvier mu nekk programme bi nga xam ne mooy jigéen yi tamit mu nekk nag euh, vraiment programme boo xam ne mhm. dafay ambitionné pour appuyer cent entreprises euh, de femmes intervenant euh, dans alimentaire à travers euh, le renforcement de leur capacité maanaam gën leen jàngal ñu gën a mën a euh, gérer li nga xam ni moom mooy alimentaire yokk seen capacité dafa leen ay formation bu ñu gën ci mën a xarañ ñu jël ki cent entreprises daal di leen maanaam agroalimentaire mooy maire di def confiture pot de lem pot de lem cere mbokk parce que dem naa fu ci mel ni Sine Saloum ma gis maire yi ñoom ñoo defar seen potu lemu bopp mhm. waaw ñu defar seen kii yi euh, et puis dañuy def ay confiture à base de. Euh, pain de singe. maanaam euh, nu ñu koy waxatee buy. buy a à base de buy à base de de de d' oui voilà justement. lépp la ñuy def dañuy dañuy vraiment li ñuy wax naan transformation yi mairie dañ cee xarañ. Mhm. te dañoo bëgg ñu gën a xarañ pour xam nga foo foo dégg transformation mhm. war nga dégg li nga xam ne moom mooy conservation. Mhm. defar li nga xam ne da nga koy transformer te doo ko mën a conserver amul benn solo ba tax na dañoo war a jël. jël cent entreprises dirigées par des femmes mhm. euh, yokkal ne li nga xam ne moom mooy seen capacité technique mhm. ak managérielle ndax loo gis rek nga xam management bi naka ko gérer euh, ba nga xam ni day jaar yoon bu ko defee nag euh, ñu daal di leen ci jàppale donc ça se fera dans deux régions muy mhm. la région de Louga a la région de Thiès afin de les rendre compétitives par rapport aux autres pays d'Afrique yeneen réew nga xam ni mooy Afrique et c'est très important et coopération belge. nanaa loolu day xaw laal société tuuti. moo li mu fi wax yëpp ma yëpp ma neex xam nga man moom kuy xeexal euh, jigéen rek da ngay nekk sama xay te yow moom macha allah depuis loo yow yaa ngi ci donc li mu ci wax nii yëpp li ma ci gën a neex mooy management bi dañoo am habitude di financer jigéen ñi sans pour autant ñu manager leen former leen wax leen ne leen xam nga nga jël nit jox ko 3 millions. te amul formation ci lu mu mhm. bëgg a def les idées sont là mais pour réaliser ko mooy nekk problème donc dafa war a am suivi tout le temps il faut ñu bàyyi di euh, financer rek bàyyi la nga demal sa bopp après tout le temps dafay daanu financement dafa ànd ak suivi tant que ñu ngi koy def rek après di nga gis nii ni Europe fa la ñu rawee ah mhm. muy yeneen dëkk yi tamit la ñu rawee mais fii nii état bi ak ku mu mun ci doon euh, euh, dañ lay financer rek bàyyi la nga dem management boobu lu am solo la moo yor entreprise il faut pas que ñu jël rek financement jox jigéen bi ne ko am dama nga defar confiture wala dama nga mhm. nga yëngu ci euh, euh, leneen ak leneen te te après du am suivi na am tout temps suivi man daa sa rubrique neex na. bi yee ngi dee bi may dee naan